ma dugg ci biir ngir naa fekkee ñu lor ma ne ko saa fi ma ne ngir yàlla dama laa soxla te lii mënul xaar ma ne ko amul sudah happy pun oleh sebujoi joi ya mana kau pun feli dari kahde kahde no mami ni ram semua kahde pun jadi kuat bu mengleka kalau ni nama kita dalam bulu bulu di bentuk fuh dalam bulu bulu sekret diggante góor ak jigéen moom de du du faale moo tax sama góor bi ngay liggéey bu fa ñëwee mën a fexe moom de du dugg mu ne man dama la ko ñaan ngir yàlla soit fi mu bëri ma ne ko ñuy wax kenn déggu la bu la neexee ñu jaaw wax ko suuf bi wax daal waaye moom mu jóg mu delloo buntu bi tuuti bàyyi espace ne ma ko saa bagaimana boleh mereka seraya nak usah nyanyi ayu di tengah gunung oleh bangkai Ufek dalam konsep ayu itu jauh asalnya dari nyanyi sudah dalam dia pergi jauh selanjutnya nya mereka memang jangan sah seorang orang yang punya nya mereka kalau bawa itu sah masa saya itu punya bukan ini mau lucu mana pernah kita sudah mulai itu sudah bawa lebih dalam dalam dia ada dia ada yang sama xale bi gën na ko wax ma ne ko lan mooy sama bi ma ne ko saak sama yaay dafa yéene mouchoir jox ko ko foo ko seeral ko jox ngay yor loolu mënul ci am bàkkaar mënul ci am benn bàkkaar parce nga wax dëgg la sa yaay dafa jubal yi nga bëgg koo jubal waaye muy sujet pour ba tey bi mbokk yi mbokk yi maa ngi leen sama mbokk yàlla waaye di ko bépp jullit moo xam muy góor moo xam muy jigéen bokk na ci li xale yi wax ustaas li tax ma bëgg nga wax ci lii mais sama yaay day dina leen déglu léeg-léeg day faral di wax sax ne dénk ndaw soosu di ko dénk jigéen ñépp ñu may dénk waaye di ko dénk góor ñépp ñu góorgóorlu ba day talu wulif li yàlla tere suñu bëggee bokk ci ñi ragal yàlla nar a am yowmal qiyaam kóolu mel daal muy sécurité